ngeen ñi topp ci la rajo du bonheur di nuyu tam au passage ñi nga xamante ni ñooy seetaan la chaîne du peuple Rewmi TV tey ñu ngi fii ci Fass ba tey dans le cadre de votre émission Rewmi People ñu ngi seet si tonto Pape du groupe Pape Cheikh alors euh, laata ñoo soobu ci waxtaan bi tuuti ñu bàyyi ko mu nuyu nga xamante ni ñoo koy déglu di ko teewlu tonton salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices yu réew mi réew mi TV télé bon di am mbégte lool. ak Rewmi FM ak Rewmi FM di am di lool euh, recevoir leen tey fii si kër gi incha allah. Mhm. ana sa binom bi tonton tonton Ba. Cheikh tonton ah, Cheikh moom xam naa ni dafa dafa bougé. Mhm. mais mu ngi fi mhm. waaw. d'habitude vous passez beaucoup de temps ensemble wala. waaw d'habitude nag bu ñuy musicalement on on pense dañuy toog lu nekk lu yàgg mais des fois bon moom comme des fois day nekk fii wala mu nekk fa fële bon. on a l'habitude loolu depuis bi ñu nekk xale la ba léegi. Mm-hmm. groupe Pape Cheikh c'est ñu bëri dañuy rêver xam fan fan la euh, groupe bi sokkee ko rencontre bi euh, déjà yéen ñaar fan ngeen xamante. waaw groupe Pape Cheikh waa ñun bi ñu nekk xale man ak Cheikh la nga xamante Kaolack. Mm-hmm. boobu am nañu 9 ans 10 ans su la ñu tàmbalee di xamante ñoo ñoo commencé ndoo musique ñoo commencé ndoo benn orchestre ñoo. maanaam mun naa la Cheikh Pape Cheikh ñu bari xamuñu sax Pape nu mu sant. Mhm. bari xamuñu Cheikh ay ay xarit lañu yàlla moo def loolu moo tax euh, euh, lu ñu am nag xëy na musique mayuñu ko mais xaritoo moo ko may. Mhm. que moo xam nga ñaar ñuy ànd bu ñu déggoo rek ci li ñuy def yàlla da def la xam mhm. musicalement moo leen boole wala y a une relation avant wala vous avez senti la euh, senti la musique pour faire. benn tim li xale yi naan tim wala relation première bi c'est quoi l'amitié. Mm. relation man cher. Mm-hmm. musique boolewuñu. musique daf ñoo dab. boo boo xool sax man bi may def musique bu fekk na maa ngi ñaw di football Cheikh bi muy bi muy nekk vraiment ci musique bi moom mu ngi dem université di jàngi. Mm-hmm. kon musique daf ñoo dab boobu ñoo bokk di nekk après nag ñu jàng. boobu ñaata at ngeen am. bi ñuy def musique commencé ko dëgg dëgg dëgg man bi may commencé Cheikh maa ko njëkk a commencé musique parce que maa ngi doon def ay chorale mm-hmm. xam naa à peu près 12 ans 13 ans 14 ans maa ngi def chorale. Mm-hmm. mais nag bi ñu ñëwee fii nag ba Dakar ba ñëw Dakar nag ñu fi ñëw xam naa boobu ñu ngi war a nekk ay 16 ans 17 ans 18 ans dañu war a commencé musique bi nag 20 ans yooyu côté boobu waaw. alors euh, seen euh, fi nga xamante ni moom ngeen sokkeekoo ak euh, fi nga xamante ni fa ngeen cosaanoo mooy Kaolack. Mhm. est-ce que c'est une région musicale est-ce ci wàllum taarix dafa nekk diwaan boo xamante ni ku fa dëkk wala nga bàyyi koo fa. Mhm. inéluctablement da nga def war a mu da nga war a def musique wala quelle est l'histoire de cette région avec de la musique. waaw moom li sànq rek am na ko ma koy wax ma ne ko Kaolack dafa nekk genre brassage. Mhm. boo fa nekkee il faut que culturellement mu am. du lu la topp boo ko xoolee même sport mbedd yi dañoo yaatu euh, quartier yi ay tukulóor ay séeréer ay bambara ay saraxulee ñun ñoo dëkkoon parce que a chaque fois am na benn événement boo xam ne ni ba ilaa ci benn la ci ñooñu mm-hmm. joolaa yaa ngi nekk fii séeréer yaa ngi nekk fii bambara yaa ngi nekk fii maanaam loolu boo ci boo ci boo ci màggee ci noonu dafa am lu mu lay dafa dina am jeexital ci yow mm-hmm. carrément léegi nag ñun dañoo bëggoon musique mm-hmm. di déglu musique Mm-hmm. léegi nag ak loolu nga xam ne dafa bokk si jeexital si ñun xëy na moo moo moo moo réveillé lii nekk tey jii si ñun. Mm-hmm. ban année concrètement ngeen révélé wu sur euh, waaw ñun ñun defe naa Sénégal bi ñu bi ñuy xam Pape Cheikh boobu fekk na ñu bi ñuy génnee euh, sunu premier album. Mm-hmm. mooy bi def ay yaatal géew ay soññi yooyu moo tax ñu xam Sénégal waaye boobu balaa ñu koy pare balaa ñu egg foofu def nañu. ay à peu près dix ans. Mhm. nekk di jouer ci ay orchestre ay variété mhm. nekk ñu Cheikh nekk Mbour ma nekk Fimela léeg-léeg ma fekk ko mbuur léeg-léeg ma fekk ma Fimela formé nañ ci orchestre tuddee ko Samta Muna nekk ci àll bi def ay tournée euh, jàng yenn culture yi. Mhm. dem xoslu daal ci ci àll bi man man man personnellement avant may ñëwaat Dakar def naa dix ans ci àll bi. ci village yoo xam ne ni amuloon sax courant. loo fa doon def. musique ñaw football. Mm-hmm. waaw d'accord ci ñetti métier yooyu nga wax yëpp ban moo la ci gënal. non yëpp ma gënal mais dafa am yoo xam ne da la fi xaar xam nga xam nga xëy na téyeer mun na la fee xaar mais football mun na la fee xaar parce que loolu ay ay football xale koy def. Mm-hmm. musique loolu passion la boo xam ne mënut a wujjee lu bari ci nit. Mm-hmm. soo ko xasee bu la xasee ba dugg euh, dama daan am ñaw yoo xam dañu ma ko daan jox yu bari mais suñu ma ooyee demal musique yi. non seulement moom laa bëggoon mais mais ci ñaw bi may ñaw nga xam ne bon da ngay pédaler gañ gañi benn somme mais métier la boo xam ne ni euh, li ma gën a neex sama àdduna mooy jàngal naa ko nit ba mu ci mu ngi ciy gàñe àdduna ah jàngal naa jàng naa ñaw ba jàngal koo xam ne boo demee dëkk ba bokk na ci ñi dàq ñëw ci côté ba mu nekk waaw léegi nag mënatuma sama bëti neexatul mhm. boo boo kiyee ñu ne la prestation yaa ngi nii musique baa ngi nii mhm. bari na daal yoo xam ne nii bon musique mu musique dafa xaw a doy waar quoi dafa fiir mhm. comme ni ñu koy waxee waaw. tonton euh, tonton euh, ñu bëri euh, mën naa wax ni sax ñëpp ñoo leen di bëggee ñoo leen bëgg. Mhm. souvent bu may déglu musique Pape Cheikh sama yaay danaa ma lii du musique gu gone de. mais ngeen bokk ci ñun mais à un certain moment déggatul leen woon qu'est-ce qui était dû à cette <laughs> loolu dañ koy faral di dégg ah léeg-léeg ñu ne ma yéen da ngeen absent. xam nga mhm. gis déggatuñu leen. mais nous on se dit je crois que nii moo gën si ñun parce que man je ma dis que ñun li ñuy joué bariwul musicien bi Sénégal nga wax leen ko ñu xam dëgg laa wax de ñi nga xam dañuy génn di dem ci xam musiciens yi nekk ci ci ci ci ci kii bari nag musiciens yu ba xam nga ñun bokk nekkuñu génération xale yi ay mag lañu mais suñu moroom yi ñuy àndal di joué li ñuy joué ñoom duñ ko joué place yi mag yi yi ñuy joué fii ay dîner de gala yeeg cocktail yeeg yooyu li ñu ciy joué bariwul fii Sénégal ko koy joué te kon loolu moom mooy loolu mooy pour ñun loolu mooy l'essentiel bi nga am waaw waaw loolu lu ñu bëgg nag lu ñu olof yi di wax naan boobu rëy tey métti bu mhm. tuuti te am jàmm ko gën a ñun coow lu bari di xëy na rek ñii buñ ci duggee sax mu yàqalu cat baaxul mhm. <laughs> waaw d'accord tonton bëggoon nañu xam euh, pour ñi nga xamante ne ay novice lañ xamuñu tey jii boo ñu doon wax particularité musique folk mhm. lan nga ñuy wax waaw musique folk moom li ci euh, particularité am dëgg ñu ko xam dëgg xam nañu musique folk message la message la. Mm-hmm. il faut que nga concentré wu ci si message bi ngay def ñu koy déglu boo gisee ñu ne la ah lii du musique gu gone lii du musique gu tel lii du musique gu tel fekk na mm-hmm. dafa am euh, dafa am nit ñi fu ñuy toog di déglu di di déglu lu leen lu leen amal njariñ lu leen di yee ñun foofu moom man foofu lañ teg suñu loxo. parce que man je me dis que man ku jël sama musique di ko déglu wala ku musique ba may déglu musique boobu war na ma andil dara war na ma apporter lu ma amal njariñ ci sens bu ne yàggul y a deux jours y trois jour y a une personne qui m'a appelé di ma wax ne dafa am benn dama am benn sa morceau bu ma doon déglu ba pare ma ne waa ji daf ma tooñ mais baal naa ko ma ne ko ah mu ne ma morceau bi ngay wax jéggale te yàlla tax ma ne ko ah bon mu ne ma waaw m ne ko man loolu loolu lañ ci bëgg tey jii bu fekkee nit tooñ na la nga dem am capacité mën ko jéggal au moins mun naa wax sax ni xëy na loolu bokk na ci li la influencé ba nga jéggal ko kon ñu ngi sant yàlla ci loolu loolu ñuy def noonu. kon mo musique bi ñu bugg loolu lañ muy faj musique bi ñu koy def euh, bi ñu def yaatal géew au Sénégal ça a tempéré au moins moment boobu sénégalais yi foogoon nañ ak élection yi dëkk bi day tas mhm. mais musique boobu am na lu mu tempéré ci ci ci ci ci ardeur waaw loolu nag moo tax ñun fi ñuy fi aussi dañuy bëgg toujours nit ñi buñ ñu dégloo ne ah am na njariñ mhm. dañuy ah ndax musique moom dafa bari accam. Mhm. alors tey jii consommation genre musical boobu boo ci doon indi sa appréciation lan lay doon est-ce que degré bi mu toll tey neex na la wala dal na sa xel. non xam nga àdduna day dox. su mhm. ne nii ak ak euh, kii bu bees bi génn léegi nga xam ne da ngay defar sa benn morceau rek. loolu ko si si ci gars waaw bëm-bëm ji waaw non même bëm bi xam nga sénégalais moom doo wax ne li li dara baaxul mhm. parce que kenn ku nekk am na loo bëgg am na ñenn ñu nekk am na lu ñu bëggal seen bopp loolu doo ko doo ma ko weddi mhm. musique bi moom bu am na ñoo xam ne tey jii boo leen sax du duñ duñ lu musique bëgguñu ko mhm. am ñoo xam ne musique bi ñuy déglu yow boo leen leen diw mooy déglu musique bi da nga naan non danga ci dul nekk mais kenn ku nekk am na loo mais respecté keneen ku nekk li nga nekk mais musique baa ngi dox boo parvenir xam yow li nga am ak fi nga koy yóbbu parce que sa dépend ci marchandise boo xam ne nii nga ne bii marchandise mooy marchandise bi ñii ñoo koy consommer naa fexe ba ñu jot ko ñi sonn nag mooy ñi am marchandise boo xam ne nii dañ koy bëgg a jaay foo xam ne du fa mën a jaar loolu mooy problème bi. mais tey jii wàllum euh, musique sénégalaise est loo xamante lu ci nekk safaan la wala loo xamante ni lu ci war a dindi la sànni ko maanaam lu ci médiocre l'œil dama <laughs> ah, waaw non xam nga Sénégal. Uh-huh. dañuy wax ci musique. Uh-huh. Ah, en bi càng càng déglu waaw ah, kenn ku nekk yow yaay wax sa bopp parce que tey jii su ma taxoon fii toog di seetaan samay télé bopp samay doom toog xam nga. Uh-huh. am na image yoo xam ne dama bëgg suma doom gis ko. loolu moom man la concerné ak sama njaboot. ak dindi leen ko moom comme film yi jaar nii rek da nga wax ne bii film bëgguma ko bu ekkee ne musique bi loolu foofu la tendance bi foofu la jëm ma yar sama njaboot ne leen téye leen ko parce que kenn ku ne xam nga lu baax nag ak lu bon ak luy defar ak lu yàq loolu moom defe naa benn benn jugement la boo xam ne nii ñun amoon nañ chance bi ñu nekkee xale amoon na amoon na critique soo defee benn musique bu baaxul day am ñoo xam dañuy toog déglu ko ne la eh, lii du lii mun na def nii xale yi koy déglu ëllëg mun na leen jural lii boobu amoon na loolu mais léegi amul da ngay génne sa musique léegi tey ji soo génnoon sa benn musique mën na la ah madame Ndiaye sa kii bi doxul de nga dégg sa benn mbokk may woo fële naan ma xam nga dangay génne sa benn morceau sax benn sa benn mbokk génne fee naan ah xamoon naa ne di di nga baax la sa liggéey ndey c'est dafa am moo tax yooyu nañu ko nañu ko ne ñukk bàyyil ko gaa yooyu foofu ñu mm-hmm. ñu continuer suñu yoon mm-hmm. waaw alors euh, tonton votre groupe euh, bëgg nañoo xam tey jii quel est le secret de votre réussite parce que gis nañ fi groupe yoo xamante ni constitué nañ ko euh, mu dem ba un certain moment ñu ñu off xuloo am tey jii Pape et Cheikh quel le secret de leur entente. waaw gis nga ànd ànd bi ñuy ànd man ak Cheikh ak ànd bi ñuy ànd ak groupe bi affaire famille la. Mhm. vous êtes parents. non ay xarit lañu. mais dama la bëgg jox exemple. Mhm. su nga groupe Pape Cheikh du groupe boo xam ne orchestre boo dem soirée boo dem fekk fa musicien Pape Cheikh moo fay joué. Mhm. xam nga lu ko def mhm. parce que musique pa musicien Pape Cheikh Pape Cheikh da leen di fay. musicien Pape Cheikh man awuma ay ñu ngi koy waxee ay mercenaires. pendant cinq six ans dama jël ay xale yoo ñoo xam ne ñooy ànd ñuy liggéey te lu ñu am bokk. loolu moo tax ñoom musique Pape Cheikh du sax man ak Cheikh mais affaire de famille la ñoom seen bopp ñooy defar seen i morceau ñoo andi ñoo ci man ne ma grand dama bugg nga woy morceau bi parce que xam nañ ni njëriñu njëriñu Pape Cheikh njëriñu ñëpp la amul affaire star amul ay may p may deux amu fi ñu dañoo on travaille pour que ñëpp jëriñu moo tax groupe Pape Cheikh loolu ñuy wax noonu secret boobu loolu la booy ànd ak ay nit ñi ngay liggéey da war a ñëpp dana war a am kon su ma ñëwee fii tëdd di nelaw am dépense ñoom buñ ñu tëddee war nañu bu ñu nelaw xandar parce que am nañ bàyyi nañ dépense. Mhm. c'est ça. d'accord est que jàppante mos na am seen diggante ci wàllum musique bi nga bind peut-être il n'a pas apprécié wala d'accordul ngeen xaw am xëxante ni wala. <laughs> waaw mais je crois pas ñun on règle pas ça comme ça suñu problème. mais il est arrivé une fois. yàlla xam na ne mosuma gis loolu billaahi xam nga lu tax ñun dañoo wax ne balaa ñoo def dara nañ nañ si jubbu mosuñoo werante ci loolu bu affaire ñëwee démocratie bi mooy que buñ ko déglu kenn ku nekk nañ nga wax sa feeling bi nga si yëkk bu fekkee ci côté texte bi buñ ko bindee ba waxtaanee ko nañ ne texte bi lii lañ lii mooy sens bi fii lañ ko jëmale dinaa gars yi nangul man loolu mooy suma wàccaay d'habitude kan man dinaay bind am na ñeneen ñuy bind di ma jox mais li ci ëpp quatre-vingt pour cent wala quatre-vingt-dix pour cent yi man maa koy bind. mais li ci am solo mooy bu bu xasee ba pare rek damay wax Cheikh moom mu ci musique bi. moom il est ëpp plus encore ci loolu. mu composé ñu teg commencé ko waxtaanee arrangé. yenn musicien bu ñu ñëwee ni ma ni ma mënee changé wax ci mots yi lañ mën a wax grand wax ji boo ko waxee woon nii. parce que on prend le temps pour defar ko. Mm-hmm. parce que mun nañ xam nga li gën a garaaw mooy yàkkamte affaire génnee ko rek. ah lii waroon naa ko defee nii on prend vraiment le temps qu'il faut travailler ko en famille mm-hmm. buñ ko paree répété ko ba ñëpp yëg ko nga ne ah grand kii war nañ ko mën a nañ ko nañ ko waxtaanee lañ koy njëkk wax mm-hmm. buñ ko waxtaanee ba jàpp ko nag affaire bi doo ko am beneen beneen dimension ni doo koy génnee mm-hmm. du ñàkk nag parce bu ñu àndee dina am des hauts et des yëpp am na ko ñii ñii ne ah, ah xaw a réticent mais même man dina am yoo xam ne maa ngi koy def du ma neex mais damay naan mais man nangu naa parce que nag démocratie dafa am ci yëf. Mhm. ñii ñoo ëppale loolu nañ ko def. nañ ko mhm. ñu def ko. Mhm. mais après damay xool ne ba ma demee ba ci biir ma ne mais mais ñii ñoo waxoon dëgg man ba man fi ma jàppoon xëy na sama dëgër bopp moo tax euh, ma ma téyewoon foofu ma bàyyi ak comme ñoom ñeneen dund lu metti ci loolu nag ñu ngi ko dund moment bi ñuy commencé di musique bëggoon am produit. xam nga produit production léegi la yomb bu njëkk dangay am kaset pour am ko ñun moment bi ñuy def musique mhm. dañ doon jouer ci boîte yi pour ñuy jouer sax dañuy ñu wax ndax am ngeen cassette mhm. ñu ne amuñ bu ñu mosaa jouer ba pare dañ daan jógee ville train Tringa. boîte de nuit bu nekk Tringa bu bu bu bu Comté. Mhm. dañuy jógee foofu doxee fa ba Colobane. mais suñ plaisir moo doon dem joué nañu dans certain moment nga xam ne da defar say morceau nga ñëw si diw nga ne ko ah Talla damaa bëggoon nga nga produir ma. waaw. ñu ne mu ne la ah non lii mënu ma ko produire ndax musique bi moom dafa sell dafa sedd ba mu ëpp. Mm-hmm. yooyu jaar nañ ci. Mm-hmm. moo tax jour bi ñu njëkkee gis euh, euh, sunu cassette. Mm-hmm. ñu gis pochette bi ñu def ci Pape Cheikh. bokkoon na ci li bu mel ni soulagement bu bu rëy parce que maman. très content parce que on a attendu. enregistré nañu suñu cassette 80 99 euh, euh, mu génn 2001 cela veut dire que res toog na deux ans yoo xam ne ni ñu ngi koy xaar mm-hmm. mu ngi mel ni ko xaar doomam muy waaj a judd mu toog deux ans di ko xaar mm-hmm. moment bi mu génnee saa xam nga waaw c'était nañu groupe Pape Cheikh gën a riche ci artistes yi waaw mën nañu wax ñoo fi gën a riche xam nga lu tax ñu wax loolu parce que dañoo am ay dañoo am public bu public bu select. financièrement. non financièrement moom non non non non non. ah oui non non non xam nga sant yàlla weesul xam nga nit aussi du bu la yàlla suturaale. Mhm. du ñun li ñu am rek la suñu morom yi am. Mhm. mais yàlla xam na ne ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla di ko di ko dollee le olof yi naan cant mooy tax yàlla dolli la ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax. Mhm. waaw adduna nag ku fi nekk. problème bi da ko am. et et lan mooy résoudre ko mooy que yow c'est combat. toujours des combattants ci musique bi ñuy def ak ci lépp loo xam ne entamé nañ ko dans la vie. parce que fii àdduna dafa amul lu ñu fiy mayee. lépp dañ koy xeex. waaw waaw lépp lañ koy xeex bu fi kenn yaakaar ne da ngay ñëw ñu tegal la ko sur le plat amatul. waaw faut se mhm. xeex boobu nag nit ñi mais yaay suturaal sa bopp. parce que nit ñi bu ñu demee ne am nga alal alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. yàlla sant yàgg. waaw amis auditeurs je rappelle que nous sommes avec euh, tonton. Euh, euh du groupe Pape Cher alors tonton on sent et on vous entend beaucoup critiquer la SODAV quel est euh, votre euh, qu'est-ce que vous reprochez à la SODAV. waaw li ñuy reproché mooy que gestion bi moo normal gestion SODAV. Mhm. dañoo bokkoon benn bureau bu ñu wax bureau droit d'auteur ñu ne ñu bureau droit dañ ko fi jëlee bu ñu jëlee bureau droit d'auteur fii au Sénégal mm-hmm. indi SODAV SODAV nag bari na ñu ko ŋànk te nekk fa si biir dañ doon wax ne ku daan am benn dégg lu ma la de fukk ngay am SODAV ñëwee mm-hmm. SODAV bi mu ñëwee fekk. bàyyi woon na fi euh, bi biñ ñëmoo fi jóge booba da daan am dañ daan wax da daan añ di reer di ndékki maanaam da nga doon feeku ñaari yoon ba ñetti yoon ci moo année bi léegi SODAV bi mu ñëwee ba léegi benn yoon lañuy ñuy fayeeku mais ñu toog année yi quatre ans cinq ans yëpp ñu ne mais lii ça ça c'est pas normal te yéen yéen waxoon ne bu ngeen ñëwee. ku daan am benn fukk ngeen am ñun waxatuñu ñun waxatuñu léegi fukk yi xam nga lu ñu wax ñett yi ñu doon am nañ ñu ko delloo. Mm-hmm. moo ñun daan fayoo ko ñetti yoon ci année bi nañ ñu delloo ko ñu xam ko léegi waxuma la añ bi waxuma la reer bi mais ndekki sa sax xamoo ban heure nga koy def. Mm-hmm. xamuñu fi mu ne nii kañ la ñuy fayoo. Mm-hmm. loolu lañuy ñuy moo tax ñu ne doxul. bi loolu amee. ñu commencé di ko kaas ma yëkkati sama kàddu dem seeti mam góor ñu waxtaanee ko ma ma maam góor man ma émission laa njëkk def ci benn télé mu dégg ko wax ko moo dem fa wax ak moom mu ne ko maam maam góor man ne combat bi may combat utuma ci lenn dama bëggoon ñu wax ñu waxtaanee ko mm-hmm. waaw waaw waaw ñu waxtaanee ko léegi dama bëggoon ñu ñu xool naka la ñuy def ba sodaaf delluwaat réglé waat lii ñuy def parce que du yoon bi ñu ko waxee ñu def conférence de presse waxtaan dem seeti ministre bi woolu ñu ñu dem fa. Mhm. ministre bi ñu wooloo bi ñu fa demee dañoo ñëw toog fekk waa SODAV yëpp toog cela signifie beaucoup de choses yow bu fekkee dañ la oo rek nga ñëw fekk fa ñeneen ñi nga war a li ngay war a waxat ñooñu bi ñu commencé ministre bi ne non non yéen ak comme ay rebelle ñu ne ko non li ñu fi indi mooy gestion SODAV bi moo ñu fi andi. Mhm. non yéen génne dem ci journaux yi sax génn dem ci benn télé génne sama samay répartition deux mois après mu dem octobre mu dem SODAV moom ci boppam ne leen xaar leen ma xool répartition moom ci boppam moom moo njëkk a wax ne yéen li ngeen di répartir nii c'est pas normal c'est inadmissible. Mm-hmm. loolu mooy lan naka ngay jëlee euh, collecté un milliard jël sept cent mille yow def ko ci say fonctionnement trois cent mille yi nga séddale ko loolu amul fenn ci àdduna. Mm-hmm. moom ci boppam moo ko njëkk a déploré ñu ne ko ñun lii li nga doon bañ nii li nga wax nii moo ñu taxoon toog foofu keroog comme gis nga ko kon baax na léegi léegi léegi nag waaw léegi nag dama bëgg yow parce que war na ko faj parce que boo ne lii baaxul te ngay ministre de la culture yow yaa war a faj loolu mm-hmm. SODAV am na fa ay ay ay ay ay trafic de quittance xamuñu fu mu mujj beneen affaire bi mooy que élection yi SODAV doon def dafa ci ba Sénégal équipe nationale di football mu woote ñu dajale gars yi xam nga musiciens yi boo amul carte invitation ay ba amul carton d' invitation doo ñëw man joxuñu ma carton d' invitation mm-hmm. pour ñu pour ñu teew ci ci ci seen élection boobu léegi man ñun dañuy wax ni ñun ci ban ci la ñu nekk mm-hmm. nan ñu wax ñun ña ñun ban ban societé moo ñu gérer yow yaa moom sa yaa moom siif dañ la ci invité nga ñëw ñu ne jël nañ bureau bi équipe nationale buy joué ñu war a def lu toll ni sodaaf ñu jël seen i ñu 36 membres sodaaf depuis mu ñëw ba léegi amuñu carte membre ren la ñuy doog bi ñu commencé wax wax ju bari ji nii semaine bii passé lañ ne carte yi pare na carte membre yooyu ñan lañ koy jox beneen bi ñu ne SODAV 9000 personnes la SODAV 8000 personnes la SODAV 6000 personnes la ñu ne ok xaalis bi ñëw ñoom ñoo koy séddale ñu ne ok égalitaire la wala lu mu ko mën a tuddee ñu ne leen garaawul jël leen xaalis bi ngeen séddale ko problème mu sa xaalis bi du xaalis xam nga lan la nee ngeen SODAV 7000 personnes la 6000 personnes la 8000 personnes la léegi jox leen ñu. les ayants droit ñu xam. 8000 personnes maanaam ñoo ñooy waaw ñu xam ñan la. Uh-huh. ñun li ñu bëgg xam mooy ñi ñuy fay ñan ñan la. Uh-huh. parce que tey jii man suma kër bàyyi la Sodaab. Uh-huh. bu ñu ñëw ci kër bàyyi jàmbur dafa dugg di wax ne 20 000 personnes war naa xam samay doomu bàyyi xanaa. loolu mooy le problème. le problème le problème ne ñuy wax ne ci xaalis bi amu ci. xam nga ñuy def nañ ko séddale léegi ñun li ñu leen laaj ne leen eh, les ayants droit yi nga xam ne ñoom ngeen ñoom ngeen di fay. dañ xam ñaata la. parce que nous danoo ñaaw njort ne dafa am ay fictif. ah oui oui et pourtant Sodav moom bi mu ñëwee ba léegi mu ngi bàkkoo nii elle fait dans la transparence tey jii yow. Mm. buñ la doon wax nga comparer PSD ak. Sodav eh, bu leen boole boole ñaar ñooñu. bokkuñu bokkuñu ah oui et pourquoi pas. pourtant mm. Sodav chaque jour mu voilà fan nan bu tardé mu waaw loolu la ñuy def mu tàggewuñ que sa gestion est transparente les artistes. c'est pas vrai loolu ñu def loolu ñu. loolu c'est pas vrai c'est pas vrai amul transparence ah amu ko yàpp léegi huit cent mille yi ñu ñu récolté six cinq cent mille cinq cent mille yi lañ lañ lañ jël seen seen seen place am na si ñoo xam ne si biir si seen aide yi ñoom lañ ko jox si si si si si trente membres yi ñoom lañ dimbalante mm-hmm. mu ngi fii waxuñu ba léegi kenn ku nekk ñaata la jël mais naka ngay jëlee 800 millions personnes jàmbur di ñu mbooloo bokk ko nga nga jël 500 millions yi. ni yow moom ngay def fonctionnement. loué ay kër fii recruter ay nit di def ay séminaire ba pare bëgg wax ne ban transparence xanaa c'est entre ñoom lay prendre c'est c'est nañu bàyyi lobbying boobu ñuy def bu ñu paree dem ci presse bi. Mm-hmm. mais tonton tey jii c'est quoi la solution est-ce que kon SODAV waruñ ko woon jox. artistes yi ñoom si wàllu boppam. waaw fa ay nit. yow nag yow nag yow léegi yow yow yow dinaa la ñaanal monsieur Ndiaye gën laa toppatoo xoolal. ñu copte fa ay nit. waaw ñu toogal seen bopp parce que dafa mel ni artistes yi tamit dañoo naqaree gérer. ah dëgg la loolu d' accord na artistes yi naqaree nañu gérer. Mhm. Sodaaf ah, euh, li ñuy percevoir li ñuy jëlee ci xaalis li ñuy collecté. 80 mhm. pour cent ay musiciens ñoo ko musique moo ko fay joxe. Mhm. te pratiquement boo xoolee ñi nekk ci représentatif foofu. motuñu trop motuñu quatre musique wala ci la ñuy toll quatre musiciens yi ñu xam dégg li ma la xaalis bi ñuy collecté quatre vingt pour cent yi wala quatre vingt trois pour cent yi musique moo ko fay dugal te musiciens yi ñu fa def ñuy collecté musiciens yi ñu fa jël si motuñu quatre te ñoom ñoo ko ñoo tag seen deal andi andi ay andi seen i nit parce que bu ñu def élection wu ci bu Sénégal di football équipe nationale de football ay coupe du monde nga ne da ngay da ngay dajale ay nit xam nga ne yow defoo li ngay am na fa am loo xalaatu joxe ay carton d'invitation SODAV bi mu fi ñëwee ba leen ren lay doog am carton d'invitation lay doog am carte membre il faut qu'on se dise la vérité. d'accord mais yow quand même la damay man forcé man damay laa yor damay damay dem dañ may jox sama xaalis man <laughs> mais loolu doyul mhm. du man sama personne moo ma amal solo. Mhm. parce que lii tey ji bu fekkee nii lay continuer naa dem ba bu ma fi deeyee sax samay doom duñ fayu SODAV yàkkamte na nit dee bañ dem jaale ko SODAV yàkkamte na nit feebar bañ ne dañ koy dimbale nit ki balaa muy feebar la soxla ala xaalisam c'est ça SODAV bi dañ ko war a auditer. waaw vous demandez man maay jiitu Amadou Fall. Mhm. Pape Cheikh maay demandé ñu auditer la SODAV. Mhm. waaw tonton Amadou Fall. papa Amadou Fall. papa Amadou Fall waaw. d'accord le duo pour le moment est-ce que mën nañu euh, xaar tey trio am keneen ñëw rax leen ki war a ñëw yan critères ngeen soxla ci moom. xaw ma ndax trio parce que ñun xamuñu xaw parce que à un certain moment. Mhm. on s'est dit que ko tuddee woon Ndumbelaan wala ñu tuddee ko euh, Gaynde Njaay mhm. xam nga on a on a su benn jamono ne boo jëlee sa orchestre. Mhm. nit ñëw ne maa la koy tuddal euh, gaynde njaay suba boo ko jógee mën na continuer tutu gaynde njaay waaye boo ko tuddee sa turu bopp kenn du ko mën a changer ndax yow yaa fa nekk ñun on a commencé à deux du G à di def tournée ci monde bi à deux ne ni su suñu orchestre nañ ko tuddee Pape ak Cheikh. Pape waaw. Uh-huh. bu ñu defee Pape ak Cheikh ëllëg ak sibir uh-huh. bu fi Pape ak Cheikh nekkul beneen xanaa ñu tudd Pape ak leneen. ah ñoo xam ñoom. ñun on aime bien aussi la chanson Ndoumbelane. waaw ban passage moo la ci gën a frappé. passage Ndoumbelane. Ah. xam nga des fois quand je da ay passage ay xam nga Sénégal. Ah. Ndoumbelane mooy mooy ni ko nit ñi mm-hmm. bëggee parce que au moins ñu xam un peu lan mooy déglu bi ñu koy déglu parce que tey jii. man aw ma droit sax di. Mhm. di développé ci ndumbelaan kenn ku nekk am nga noo ko noo ko jàppee. ni mhm. mu lay li mu lay sa sa sa sa say say fi mu fi mu lay féete moment ak li mu lay andil loolu rek moo am solo ci ndumbelaan mhm. mais ka dafa mel ni lu loo xas bu génne ba pare man moomatuma ko. waaw xam naa ne mu mel ni doom doom du ma jur la ak yeneen doom yi. mooy il est c'est pareil ak man pour yeneen yeneen morceaux yi. tey jii est-ce que pare nga pour wéyal Macky Sall. non je répondre à cette question. d'accord waaw alors euh, leneen li nga xamante ni tam bëgg nañ koo xam mooy tey jii. tonton Pape ban genre père de famille la il est métti ou bien. man laa jël xale yi man ndax man ndax damaa métti man man moom en tout cas bëgg naa samay doom yaru. Mhm. bëgg naa samay doom jàng. Mhm. loolu moom bëgg naa ko bëgguma ñu def musique. ah waaye bëgguma ko parce que lii nekk si àll bi nii ma gis nii. Mhm. ak ñi ñu yore ñi ŋànk nii musique bi. bu mhm. sama doom dama ko nangu mu nekk musicien. lu moo tax dafa métti. non du métti musique dafa métti. Mhm. musique dafa métti parce que musique mënoo tee nekk te amoo yar. amuloo teggin amuloo baas amuloo bagage. mënoon parce que musique bi bari na xeex. xam nga te. d'habitude benn succès bu ndaw mun na ñëw rek yóbbu la beneen côté bi su fekkee dëgëroo amuloo yar amuloo teggin mun na la yàq mm-hmm. nga yàqu te musique bi nag moom yàqu ci dafa gaaw parce que milieu ngay nekkal mm-hmm. ngay nekkal ak mm-hmm. soo amul euh, euh, boo amul yar boo boo yóbbaale amatul on sent un grain de regret dans vos paroles est-ce que tey sa wàllu musique bi ngay def am nga ci des regrets j'ai beaucoup de regrets beaucoup xam nga de partie n'est pas compris parce que quand boo xam ne yow waruloo ko def xam ne waruloo ko def mhm. li nga xam ne waruloo ko def xam nga say parents di boobu laa mais heureusement parce que sama papa avant muy dem mhm. bokk na si ñi ma ñaanal mhm. bëgg li may def nii jàppale ko regret nag mënut a ñàkk parce que c'est mooy li ma leen wax sànq adduna bi combat kese la waaw day am yu metti mm. am yu neex te àdduna yàlla moo ko moo ko muulee noonu mm. amul teggi mm-hmm. waaw bu neexee nga bu neexee nga sant bu méttee nga muñ mm. waaw d'habitude kan mooy produire Pape et dañu am seen propre label ou bien waaw li si ëpp ñooy produire suñu bopp mm-hmm. depuis bi ñu jógee jooloo li ba léegi ñu ñuy produire suñu bopp mm-hmm. tonton bokk ngeen ci artistes nga xamante ne ñoom it production ak li muy laaj yëpp ci dañ koy yëg mu metti ci ñoom est-ce que vous avez ce même problème vous. am nañu ko comme ñëpp mm-hmm. mais li ma lay wax rek mais xam nga am Cheikh tey boo demee këram am na studio. lu mm-hmm. ñu waree enregistré dañuy jóge fii rek dem këram toog enregistré. Mm-hmm. li ci des mooy mix yeeg masterisé yeeg yooyu mooy ci am solo mais leen li ci des yëpp yàlla dimbale nañu. ñu ngi koy góorgóorlu di ko di ko du ko am. parce que production moo amatul. parce que boo génnee cassette kan moo koy boo ko génnee léegi boo demee ci garage yi léegi ñu jaay la ko ne la euh, pirate yi jaay la ko. Mm-hmm. léegi nag beneen façon moo am boo génnee sa benn morceau nga dugg dugal ci ci yeneen genre communication yu bees ci xew. Mm-hmm. nit nit ñi def ko mais ñu ngi sant yàlla ci côté boobu métti oh, mënu mënu ñàkk bañ a parce que mosut a yomb. Mm-hmm. mosut a yomb te du yomb. Euh, apparition dans la scène musicale. moi que suñu premier album. Mm-hmm. mooy mooy mooy njiit njaak parce que xam nga bu nit ñi moment bi ñu leen njëkk a prêter attention boobu moo ëpp solo. Mm-hmm. mooy mooy mooy bi def ay laaw dina xëy bés. ay yaata ay yaatal géew mm-hmm. yooyu ay soñ loolu au moins am na fu ñu teg parce que taxoon ñu am euh, label sur le plan international leen def tournée ak Tracy Chapman wër monde bi ça nous a permis ñu ñu ñu xam ne mën na am nag fi Dakar Sénégal moom xam nga moom mbalax bi fii ak foofu yaa. il faut wax. d'accord tey jii euh, am nga ay regret mais am na tamit loo xamante ni neex na la. Euh, quelque chose que vous avez vécu dans vous dans ce que vous faites c'est quoi. non bon xam naa ne comme li may wax rek des fois bu bu bu bu bu waree neex ba mu ëpp sax da ngay moytu parce que xam ne léegi mu naqari. Mhm. bon yanaa. adduna bi moom dafay dafa ànd neex ak naqari bari na ci mooy li ma doon wax sànq sunu buñ bis bu ñu war suñu kaset bi génn na kontaan naa lool temps ñu ko xaar mu génn am na léegi bokk nañu ay musiciens lañ ñun pour pour ñun moment boobu la ñuy doog a xam ne ñun ay musiciens lañ am nañu kaset yeneen ñan ñu ne ñooy Pape seex mu ngi nii waaw loolu bokk na ci moment yoo xam ne duñ ko fàtte waaw ban ban ban nga gën a bëgg di déglu kan moo lay gën a man nag dama lay wax dara mm-hmm. man ay jàng laa ëpp li may déglu ah ay wolofal ay xasaayit ay wolofal ay mbay doon man ñëpp laay déglu. Mhm. kuy wolofal rek damay dem di la déglu. Mhm. parce que man dama bëgg a cultiver sama wolof. Mhm. waaw musique bi may def man wolof man dama bëgg dégg wolof. mais cultiver wolof sama papa dafa déggoon wolof. moo dimbali si yenn bagages yi. d'accord jàng nga ba ban niveau. CM2 certificat d'études la am. sérieux waaw. Uh-huh. tey jii buñ la bëgg woon yóbbuwaat école di nangu. du ma demaat. Ah, jàngi. jàng neneen di wees jàngi mooy wees uh-huh. waaw xam nga boo demee toog classe ñu ne la gaz bi jeex na uh-huh. kilifa bu demee ba toll foofu moom jàngi jàngi day wees uh-huh. jàng nag du wees waaye jàngi des fois mu wees waaw parce que moment yi problème yi ñëw sa bopp àdduna yooyu rek yooyu rek leçon la l'avenir l'avenir musical sénégalaise l'avenir musical sénégalais autant pour moi nan nga koy présager ce sera ce sera pas du facile. Mhm. yombul parce que affaire yi dafa changé jóge ci euh, nu ñu koy waxee léegi yëpp dafa ñëw ci affaire portable yeeg affaire comme ni ñu koy woowee noonu. Mhm. wàllum mhm. léegi nag loolu aussi beneen dafa mel ni beneen dañoo dem ci yàlla rek. viré. léegi il faut que ñu changé waat sunu. sunu sunu sunu sunu taxawaay ban façon communication ban façon musique ñu ngi koy jaaye foofu la ñëpp jëm moo tax musique bi léegi moom amatul kenn ku nekk mën ngaa nekk star sa kër mm-hmm. xam moo tax données yi dafa changé ni corona bi ñëwee rek dugg ci àdduna bi rek kenn ku nekk mu delloo la sa place mm-hmm. noonu noonu la demee de dañuy daw à cent kilomètres rek freiné rek corona wàccee ñu si àll bi mu ne maa ngi lay ak yéen mm-hmm. kenn ku nekk da nga wut pexe booy def ba mucc ginnaaw les les mesures de barrière yi mhm. waaw. Euh, lan mooy sa passe-temps favori boo nekkul ci répétition yi nekkoo ci wàllum woy gi qu'est-ce que vous faites. man nag xaw ma. rester damay rester fii nekk tëdd wala ma dem sama gars yi suuf di naan ataaya. Mhm. waxtaan heure bi jotee ma dem seeti sama gars yi à part yooyu bu liggéey jotee nag ma dugg dem sama liggéey. for nañ ci weewu ba tam que tonton Pape dafa dafa compliqué dafa metti c'est ah, vrai <laughs> hmm, peut-être peut mooy xëy na loolu defoo la ci man mhm. et puis c'est bien ñu ne ma dama metti wala moom xëy na dama xaw a xëy na baaxuma man xëy na loolu mais damay wax rek ne sama metti bu ko nit ñi di wax aussi dañ may delluwaat sama place rek dama war a defaraat sama bopp waruma metti mhm. xam nga mais aussi nañ nañ laaj aussi si lan moo tax ma métti mhm. su may kaas wala may wax yenn affaire yi dama ko war a teg ci bu leer mhm. parce que bëgguma aussi euh, boo boo boo demee ba yàlla def la nga nekk kilifa mu def la jox lay njaboot des fois am lu ñuy jàppee métti te fekk ne dangaa xam parce que man dama am fu ma jaar sonn mhm. moo tax su ma méttee rek dama leen di dama koy suma njaboot boog dama leen di moytuloo foofu damay bañ ñu jaar foofu wan leen ne àdduna bi yombul mm-hmm. te xam nga doom neex na mais àdduna yombul mm-hmm. te boo leen am na noo noo leen koy neexalee di leen ko raay ëllëg ak sibir ah, am na lu lay fekk fi la nga tëdd ngay ngay am sa pourcentage te li pourcentage boobu yàlla nekk lu baax mm-hmm. waaw métti nag ah moom boobu mun na nekk man loolu aussi c' waaw euh. défaut mun na nekk défaut man ma ma ma ma jàngee ci aussi defaruwaat rek mhm. waaw ma jàngee ci rek dem defaruwaat mais am na lu may bañ aussi mhm. lu may bañ aussi dama bañ injustice mhm. je n'aime pas l' injustice bëgguma ko waaw bëgguma ko vraiment bëgguma injustice waaw quel est quel quel est le projet qu'est-ce que vous envisagez de faire très prochainement li ñuy envisager njëkk mooy Euh, avant Covid bi dañoo nekkoon di enregistré sunu album. Mm-hmm. Covid bi ñëw na ba léegi jóge ko fi ñu ngi bu commencé yëngatu yi te yëngatu yi ñuy def yëpp place yi ñu koy defee dañ leen di wax ne bëgguñu ko fi ñëw jëlee ko fi. wala mm-hmm. koy ñëw àndaale ko fi. Mm-hmm. waaw loolu mooy combat parce que combat actuellement nii mooy situation bi nga xam moo am actuellement muy maladie bi. ñun ñëpp dañoo war a taxaw xeex ko entre notre manière ñun ay ay ay ay porteur de voix lañu ñu ngi def ay publicité di ci wax nit ñi ni ñuy defar ak di ko moytu nag di ci moytulee ñëpp di suñu njaboot. Mm-hmm. mais li wër te mooy musicalement am na lu ñu defar ñu ko teg di xaar. Mm-hmm. am na yu ñu préparé yeneen. Ah, projet yi ñu amoon di ko waroon joué jéeg yooyu yëpp yu Covid bi ñëwee dañ ko dañ ko mujj teg mm-hmm. kon. li li projet bi njëkk daal mooy yal na fi yàlla jëlee ñaan la yal na fi yàlla jëlee mbas mi lu gaaw ba ñu delluwaat si suñuy suñuy suñuy activité mm-hmm. waaw. amoon nañu mbégte ci bi maa ngi ñaanal euh, Rewmi TV vraiment c'est ça fait plaisir. Mm-hmm. ak euh, euh, waxtaan bi parce que xam naa ne. ça ça m'a permis aussi yéen ma mun a wax xëy na génne lii sama xol. di jéggalu nag parce que comme ne nañ dama tàng maa ngi maa ngi jéggalu bu fekkee dépassé naa kenn. maa ngi jéggalu ñëpp bu fekkee dama dépassé benn doomu aadama waaye dina ma yee aussi. ma ma gën a ma gën a dal. waaw mooy ñaan yàlla mi nga xam ne xëy na loolu défaut la nit nag day am haut et des bas. ñaan yàlla mu. bu dee défo défo bu bon la yàlla na ko dindi. Mm-hmm. waaw wala mu wàññeeku. Mm-hmm. di leen parce que mënoon nga ma ko bañ a wax. Mm-hmm. ma continuer nekk ak sama fugg bi di foog ne man maa nekk ci dara te fekk man nekkuma ci dara <laughs> non c'est ah, ah, xëy na xëy na man <laughs> uh-huh. ma sant yàlla rek. Ah, parce waaw man uh-huh. sama nature la parce que man mënuma. xam naa je suis trop émotif. man yenn affaire yi souvent dama koy génne sur mu dem man il faut ma dégagé wu pour dem loolu. xëy na loolu baaxul aussi. bon maa ngi ñaan xëy na li may war a dund ci àdduna yàlla mooy musal ma rek mu mu mu mu jural ma leneen loo xam ne du loolu ko waaw mu mu jural ma. mu jural ma jàmm jural leen ko jural ko mbooleem jullit parce que aussi nit ki lii kee mooy ko mu accepté ne defoom mhm. lii la di ñaan yàlla nag di jéem a toog di defaraat boppam parce que mais jamais trop tard nga toogaat def autocritique sa bopp ne man kat ndekete yi mm-hmm. li lañ ñikkate ndekete nii nit ñi li lañ foog ci man ma defaraat sama taxawaay bu baax Tonton, merci beaucoup. En i cas, c'était un grand plaisir. Merci. ñëw fii ci waxtaan ak yow on aimerait bien avoir aussi notre tonton l'autre tonton cher mais ce n'est que partie remise amis auditeurs merci d'avoir été à l'écoute depuis 16 heures ñu ngi big up tam di shout out de passage yi nga xamante du ñu seetaan ci la télé du peuple Rewmi TV merci beaucoup à notre caméraman Modou Ndiaye comme toujours il a bien assuré la chose coucou aussi à notre consoeur du quotidien Rémi, Anna Chao. Encore une fois, merci beaucoup à notre invité, Tonto Pape euh, Fall du groupe Pape Gère. amis auditeurs dem ñëwaat du ko yàq euh, samedi prochain lay doon ak beneen star ñu toog fi ak moom merci chez vous et très bon week-end.